kër gi moom ci kanam sëriñ Modou mii ni mu def Cheikh Abdou rek la ma def ni mu def Baye seex ñoom ñii rek la ma def ci ñaari wàll ndax sama baay la woon ak wàjjur sama baay la ak sëñ Abdou Lahad ñun sama baay la woon ak soxna May sama baay la woon ak sëñ Cheikh Awa Balla ba tey bii ñu ñëw wax naa ko Cheikh Abdou démb nettali ko ci histoire lu bare bare kon su yàlla dogalee ñu boole ñu liggéey bi dénk ma liggéey bi ma ñëw kër gi xew xewle lu mel nii ku nekk xam na bis bi ni mu toll ndax yaakaar naa ne boo ne soxna jaara bu soo màggal ak poroxaan ne laylatul xadar soxna may ci Sénégal ci taarix ci Afrique def naa ne dootoo ci dégg bis boo xam ne nii bisab soxna lañ ko jagleel bu toll nii bariwul ci taarix dégguma ko lu bari ci Afrique soxna si nag suñ boroom dogal na barkeelu la ndax yëngu ci moom ak xa ak jëf ci moom dafa mel ni ndimbalal suñ boroom la sëriñ Abdou Lahad nag mos naa wax ne yàlla de bu la nëmmee dimbale dalay teg ci yoonu ndimbal da ngay jëfal suñ borom gërëm jële ci ndimbalal àddina ak àllaaxira wala nga jëfal ku bor suñ borom gërëm mu ñaanal la ñaan goo xam ne du tàggook yow adduna du tàggoog yow àllaaxira nga defaru ca kon nag yëng loolee sëriñ bi doon dëral ci ñaan yàlla na ñu ko yàlla dëral ci bis bii sëriñ bi bi bis bii jub nga boole ñu ak Cheikh Abdou Bali mi ñu dem ci gouverneur de la région de Diourbel def benn CRD ngir waajal bis bi ah, mu dajale ñu gouverneur ak préfet ak sous-préfet ak njaboot bi ñu ànd ngir waajal ko lépp loo xam ne administration bi jëloon na ko ay engagement ak lépp loo xam ne maire bi jëloon na ko engagement xam naa sëñ Cheikh Abdou dana ci ñëw ci kanam ànd nañ ko ak ñoom fekk ñu ci dëkk bi ñu bokk di ko topp di ko lijjanti ba suñ boroom dogal na lépp loo xam ne waxoon nañ ko fi def nañu ko kon nag duñu man lu dul boo taxawee ci kanam mbooloo mi ñu dalal gan ñi ci saw tur waaye sant ñi nga xam ne membre de CRD bi nga xam ne moom lañ ko séq ñu leeral la seen taxawaay waaye dalalal la délégation bi nga xam ne jóge na ci président de la république te Omar Gueye jiitu ko ànd ko ak Gallo Ba ak Isma Dioum ak Alaaji Dia ak monsieur ministre Ibrahima Ndoye ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay wëllale ay xarit lañ ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu ñëpp ak di leen baal ak wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh